Boye maa ngi leen di nuyu di wax rek ni ñun xam nga ay député lañu te xam nga ni ñëpp xam nañu ni loi euh, justice ay loi mooy ñi nga xam ne si ñooy doxal loi yi te loi yi xam nga ni bu dee exécutif ak parlement ñoo koy defar donc ñun loi yi ci ñun lay jóge mais li xew moom mooy euh, ni ñuy dundee ak loi yi bu ñu demee ci justice nan lañ koy appliquer ak nan lañ koy defaree mais daal li xew ci Sénégal mooy ñëpp dañuy jàpp rek ni. daal suñu justice bi lii suñu justice bi lii ñii di leen ŋàññi ñii di leen gërëm loolu donc moo tax am na problème problème boobu nag moo tax bu ñu nee nañu toog waxtaane ko ba ñu am ci benn dégg-déggin société dafay laaj loolu bu ñu demee ba coow am wala jiix jaax am ci benn mbir bu ñu ne nañu daje waxtaane ci loolu day am solo loolu moo tax kon jaloog bi bu ko président wootee ci mbiru justice nit ñi ko seq ñëpp nañ ko bokk waxtaane woo député yi woo magistrat yi woo woo ñëpp noo tax ñu ngi am yaakaar ni xanaa bu fi waxtaanee ba jóge fi ba ku nekk génne li nga yaakaar ni rëq-rëq la génne li nga xam ne si yaakaar na ni moo koy saafara muy ci nit ñi ak ci moyens yi ak ci doxalin yi yaakaar nañ ni buñ ci jógee dana nekk beneen jéego bu bees boo xam ni danañ ko ànd defaat.